jële jële jële jële jële ayca échauffement échauffement échauffement <laughs> bandi baa ngi <laughs> tey confiance nga andi de xam nga man gaynde la te Kaolack laa dëkk donc booy man wesh wesh du ma ñoom man du daan je tâte je cogne et je gagne ñu ngi lay tëkku nga taxaw foofu di reetaan yow yow kay eh. eh. jëleen am jëleen ah, am attention attention eh. attention attention waa mais. am mais Matar mais Matar am attention am kay am kay am kay. am. Eh. tey nag son excellence. is coming <laughs> son excellence is coming alors euh, balaa ñuy ñëw ci match bi parce que li ñuy njëkk a def moom mooy euh, simulation gis nga tyrolienne bi da nga ci jaar li ñuy def moom mooy simulation à chaque fois bu ñu ñëwee. balaa équipe yi joué ñi nga xamante ne ñoom ñooy coach Sportland yi dañuy defaral simulation mooy parcours bi nga xamante ne euh, moom ngeen war a def waaye nag ci suba ñëw nga fi fekk fi ay xale ndax euh, nee naa la euh, vacances de ouf ñëpp la ëmb ñëw nañ fi ñu ànd ak Olympique Sénégal waaye tamit dafa am ay ndongo daara yu ñëw le temps que ngeen échauffé wu ma dem dalal leen ñu def parcours bi ñu xool ñun moom pare nañ 2S yow ak Chadia ku ci gañe rek jàmmaarloog ñun comme d'habitude ñu defal la bagage pare nga <coughs> avec impatience Aïcha <laughs> Palte vous regardez la 2STV sànq ñu ànd ak euh, Olympique Sénégal nag euh, ñu euh, indil